salaam people dal leen jàmm ci seen podcast mën na nekk en direct du Fuladu tey maa ngi ci dëkk boo xamante ne ñi ngi ko daan woowee daado donc dëkku Moussa Molo dëkku kilifa bu mel ni Mokhtar kebe dëkku professeur Seydi waaw ak suñu grand king du Fuladu Dabi Balde ñu koy nuyu bu baax. tey nag ñi ngi fii ci Sibéré kande ci benn endroit bu magnifique maa ngi nii di gis ay garab di gis ay paysage bu amul fen franchement ñi ngi ci Sow Ranch maa ngi fii ak sam benn sister bu tudd Baylaaw lii mu dalal ñu fii war ñu waxtaanal ci liggéeyam moom mi ngi yëngu ci wàllu agriculture ak élevage Baylaaw na def. maa ngi fi. yaa ci jàmm. waaw maa sa xaalis bu baax daal. ah tuuti rek. mais voilà kañ nga commencé liggéey ci ci bay ak ci élevage. mooy bi ma génnee école rek damaa def formation trois ans bi ma paree foofu nag après ci laa ñëw fii nii Kolda mooy ci ferme Belal Sow bi sa ma def fii incubation de six mois après bu ñu paree loolu ci formation six mois bi ci lañ ma oowaat tamit ma ñëw pour ma defaat beneen formation muy transformation. kon yow jóge woo si Bere Kande. déedéet Vélingara laa jógee. ah nga jógee. Ah. foofu nga njëkk jàngee formation bi. waaw foofu laa defee formation bi ci bi. CFP ah, nga jógee foofu nga ñëw fii dolli xam-xam ma jógee foofu ñëw fii dolli xam-xam. ci wàllum maraîchage ndax maraîchage fii laa ko njëkk jàngee. ak aviculture yokk ci xam-xam tuuti. ak ci beneen formation muy transformation. dañuy defar ay céréales comme ay caakiri. ak ay araw mango dañ koy defar ak ay caakiri mango caakiri banaan ak ay sankal dañuy defar ay sirop mango ak ay nectar màdd bi tamit la même chose ak tol maanaam yéen lépp li ngeen di defar ñun moom la ñuy jëfandikoo chaque jour di dem ci supermarché yi wala ci boutique yi. di ko jënd. mais yéen yéen koy jëlee à l' état naturel. transformé ko. waaw te du am benn produit chimique. en plus lépp c' est naturel. lépp c' naturel. mais loolu est-ce que c'est possible tey kon nit nekk fii Sénégal di lekk loo xamante ne c'est cent pour cent naturel. oui am na ndax am na ñoo xam ne dañuy utiliser produit chimique xam nga ni loolu baaxul ci wér gu yaram te ñun fii duñu utiliser produit yooyu yëpp. suñu embouche bi ci la ñuy jëlee ay fumier ci la ñuy def ci suñu culture yi. loolu lu jar a encourager la man parce que damay gis ne nit ñu bëri duñ ci bàyyi xel ndax grosse production bi alors que donc c'est bien possible nit. dëkk fii di consommer local déjà mu jógee Sénégal ñu defaree ko fii ba pare mu nekk 100 pour cent naturel nekk li gën a baax ci suñu wérgu yaram. lan mooy solution bi pour que ñu dem ba yegg fi nga xamante ne Sénégal yëpp dinañ mën a sangoo saabu boo xam ne bu naturel la te leer na ma ne mooy gën a baax ci peau lekk-lekk boo xamante ne fii la saxee fii la jógee naan loo xamante ne fii la jógee pour yow loolu lu mu nekk la. waaw lu mun a nekk la. coonu du réer kon du ma yomb yoon bi dafa sori du tàyyi di rën rën tànnu ma ak ni ci yoonu jublan damay def sama max bala sàkku liggéey bi ngay def dafa am solo parce que yow yaay jëlee ay matière à l'état pur transformé ko nit ñi di ko utiliser chaque jour ci seen dund muy muy yombal seen dund mais yow ñan ñooy say client ci sa ci sa activité ñan ngay jaay produit yi ngay transformer suñu produit dañ koy exposer ci supermarché yi lu mel ni foire dañ koy yóbbu foofu tamit jaay ko foofu ak marché yi tamit dañ koy yóbbu foofu même père de famille sax dañuy jënd si ñun. kon da ngeen di da ngeen di liggéey bu baax je suppose ci communication boo xam ne il faut que nit ñi comprendre ne yéen seen produit mooy gën a baax ci ci nit ñi seen wér gu yaram. loolu des fois du metti pour nit ñi comprendre ko wala gëm ko. Hmm, parfois day bett tuuti mais avec le temps comme ni ñuy waxtaanee chaque fois ci marché yi dañuy gis ñuy nekk foofu te xam nañ ñun suñu produit bi amul. produit chimique. amul ay produits chimiques waaw. kon yow da ngay transformer ay produits alimentaires da ngeen di defar ay saabu si j'ai bien compris. dañuy defar ay saabu même maraîchage sax dañu bay ay ñoom tomate poivron lépp dañ koy def. ci li ngeen di def yëpp lan moo ci gën a jaar. wala yan ñoo ci gën a jaar. ñoom tomate ndax heure bu ñu ko doon def daa fekk tomate amul marché dañ ko doon jaaye da doon jar bu baax ndax heure buñ ko doon yóbbu te dañuy gis ne tamit tomate bi day yàgg si ñoom te du yàqu. mooy lu ñu leen expliquer ci wàllum wérgu yaram ak ci wàllum produit chimique bi ñu ngi koy gis ndax dañuy téye tomate bi di nekk ak moom ay semaine du yàqu si ñoom. contrairement ak produit bu xamante ne dafa am produit chimique boobu danga koy téye deux jours trois jours rek nga gis mu def ay bëtt bëtt lu kenn xamul moo tax suñu gisee ñu yor sax suñu produit yi dañuy njëkkante pour ñëw jënd si ñun. man personnellement affaire sirop daf ma neex dama gis ne da ngeen di def ay siro màdd ay sirop mango affaire yooyu loolu ku ko buggoon jàng ça prend du temps wala. soo defee sa xel bi rek wala soo bëggee def dara nga def ci sa fulla ak fayda rek da ngay gis mu yomb ci yow. boo amee boo amee bëgg-bëgg bi. rek da gis bu yomb te da ci ciy sawar. kon toog fii liggéey fi tekki fi mun na nekk. waaw toog fi tekki fii liggéey fii mun na nekk. <laughs> merci beaucoup Baye Law. ok de rien. waaw mais sama gaa yi ñoo ko déggandoo man moom bu mu leen bett su ma jékki-jékkee di leen proposer ay livraison de jus de citron wala ay sirop de mangue wala ay sirop de madde. maa ngi nii ci Sow Ranch ci biir Kolda nekk sama kaw njowaan di naan sama caayan DJ bépp tegal ma foofu benn son ci kanam ñu déggantewaat ak gars yi léegi léegi jàmm dong la. yow bëgg naa am am mais dafa laaj xam-xam laaj na jàng laaj na xam bëgg tekki bëgg tekki te soxlawul teg di loo teg di loo bëgguma coow coow taluma go yaay booy jooy jooy bugguma baay booy son baay booy son wërsëg teew ma coob sama wàll alal bu leew xel bu dal yeew matin song sama biis job ba fin mooy faj sama xiif képp kuy jeune ci région de Kolda te bëgg tàggatu am na formation yoo mën def te du la dikkee dara mbaamu mu dikkee la néew mën ngeen tàggatu ci comptabilité gestion agri élevage coiffure restauration santé et hygiène ak yeneen yu bëri yoo xam ne soo leen demee ci suñu page Instagram wala Facebook di ngeen fa am information yi ngeen ciy soxla yépp biir Kolda mun nañu ne secteurs yi gën a dox ci wàllu liggéey ñooy énergie renouvelable agriculture artisanat élevage foresterie te lim bi yemul fii am na yeneen domaines yu bëri yoo leen mën gëstu soo leen demee pôle emploi pôle emploi au département de Kolda mi ngi nekk ci ancien garage Kolda Plateau pôle emploi au département de Vélingara mi ngi nekk ci quartier Saint-Thian Aïdara pôle emploi au Médina Yoro Fula mi ngi nekk ci quartier Laali Dem jàkkaarloo ak préfecture bi. salaam back people ba léegi yéen a ngi ci seen podcast mën na nekk en direct de maa ngi nii jóge lekk benn kaldu bu garaaw garaaw garaaw ñu nuyu suñu sister Sophie moo ñu dalal ci Kolda Sophie médecin boo xamante ne vraiment am na teranga jóge Dakar ñëw fii mu ñu yàq bu baax tey rek ma nekkaat ba benn jigéen boo xamante ne jigéen ju mën góor la ñu koy woowee Kumba Mbaalo Kumba na nga def. maa ngi fi Elzo. yaa ngi ci jàmm waaw maa ngi si waa Kolda. ñooy nii rek. yéen a um- um ngi cool. waaw sant yàlla bu baax. seen temps bi dafa a ñun temps ñu ñibbi de. ah non des leen des leen. ah des de. des leen Casamance leen Casamance moom daa neex. oui si ñëwaat très bientôt. incha allah yow nan nga def ba ñu coopté la nga nekk champion réseau bi. waaw man ah, balaa may ñëw si réseau bi ah, dama nekkoon ci ay activité personnelles. mooy dama nekk si entrepreneuriat di def commerce mais aussi di yëngatu si wàllum bâtiment mooy construction parce que loolu laa jàng comme architecture di def ay plan donc euh, mu amoon benn offre bi GIZ lancé woon après ñu woo ma ñu ne ma dañu am formation mooy leadership ak développement personnel donc du coup après laa dem ma yóbbu sama CV ñu jël ma ma dem assister formation bu ñu assister formation bi après dañoo créer benn cercle si biir cercle boobu nag la ñu copte ay xale ñi nga xamante ne ñoom tamit dañuy yëngu si yeneen domaine ñu copten man ak Pathé euh, ñu dem représenter mooy la région de Kolda. d'accord si réseau bi noonu laa duggee si euh, réseau ça veut dire que yàgg nga def ay activités sociales mhm. culturelles. waaw fii nga juddoo fii nga yoroo. waa fii laa juddoo fii laa yaroo euh, ba pare di yëngatu si aussi sur la santé de la production mooy centre conseil ado bu Kolda. d'accord mhm. est-ce que ci li nga nekk di def yàgg nga ci gis ay jigéen. yoo xam ne ñu ngi yëngu ci loolu ñu la inspiré mm-hmm. wala yow yaa am sa sa sa sa fulla ak fayda bu bopp rek ne jigéen laa mais damay damay duma xaar damay actif mm-hmm. damay entreprendre mais domaine bi dama doon gis benn femme moom day def mécanique oto mm. affaire bi na ma ne waaw métier bi tamit jigéen ñi dañ koy def ma ne pourquoi pan parce que def naa bac bi affaire bi doxul ma ne xaaral ma bàyyi daba bac bi ma dem def kii ni formation professionnelle donc noonu laa duggee ci loolu noonu di ko def commerce bi aussi c'est ça parce que boo nekkee ndaw amoo fi ngay weeru il faut nga am fi nga jàpp donc parce que bëgguma dépendre ci góor wala leneen dama bëgg a njëriñ sama bopp man may dem di def ay prêts ci banque yi di def commerce noonu laa commencé daal. mais du question parce que dama gis keneen di ko mm. def ma ne ma référoo ci moom non non. waaw mm. dama xam ni rek dama war a góorgóorlu parce que xam naa sama situation bëgguma kenn yab ma moo tax ma commencé di def loolu. macha allah mm-hmm. kon pour suñu petite sœur yi nga xamante ne ñu ñuy déglu. Mm-hmm. yow gëm nga ne que amul métier wu góor wala métier wu jigéen mm-hmm. jigéen mën na def mécanique. <laughs> mën na nekk maçon. Mhm. jigéen war na mën a football. Mhm. war na mën a nekk scientifique. waaw ah moom jigéen ñi war nañ ko xam ne parce que gis nga man su ma demee chantier nii di di tabax gars yi dañuy waa jigéen maçon. donc xale jigéen ñi nañu xam ne li amul benn liggéey bii def distinction kii góor da koo war a def wala jigéen da koo war a def nit lépp loo gëm rek da nga cee war a dem jusqu'au bo donc man moom dama leen di encourager rek nañu dem ñu xam ni métier bu nekk métier la tant que demoo sàcc ji moom lépp loo mën def pour jëriñ sa bopp rek loolu baax na. Ah, loolu moom punchline la boobu di nga di nga mos a dégg ma utiliser ko. lépp baax na bu mu def sàcc. waaw waaw tant que rek yaa ngi ci lu baax loolu daal. suñu rakk yi nga xamante ne dañu bëgg soxla accompagnement ci seen mhm. projet professionnel. Mhm. fan lañ mën a jëlee contact ak euh, réseau champion yi fii Kolda. waaw loolu yaakaar naa dina yomb mën nañ jël sama numéro euh, mooy 77 628 00 72. wala 77 628 00 72 wala ñu dem suñu page euh, Facebook. mooy page champion yi. réseau des champions bu ñu demee foofu dinañ am tamit ay réponses. merci beaucoup Coumba waxtaan bi neex na su ma sañoon mu gën a gudd. waaw euh, merci encore ci accueil bi. merci. waa Kolda tàggu nañ leen waa jàmm dong la woon ci biir mën na nekk wa